une de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Serigne Cheikh mooy nuyu mbokk yi fi teew yépp ci tuuru sëriñ Abo Mbàkke moom sëñ Moodu Maawun di kii di fag Daaru Salaam di teg nuyoo bi nag ci loxol sëriñ Seexuna mi nga xam ne mooy ndaw li fi sëriñ sii bàyyi mu toogal ko ci jataay bi te jataay bii di jataayub sëriñ sii di ndax ak njabootam ñoo ko taxawal nee mi ngi nuyu ñi fi teew ñépp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di jiital ci nuyoo bi nag sëriñ daara yi nga xam ne ñoo doon taxawee daara ji mbaa daara yi ci dëkk bi ak dong daara yi nga xam ne ñoom itam ñoo doon tari tey ak ñi ci seen ginnaaw di leen ñaanal yal na yàlla barkeel seen alquran yal na leen yàlla barkeel sax la wax waaye alquran moom barkee na ba noppi kon yéen ñi ko doon jàng te mokkal ko yàlla na yàlla barkeel leen yéen ñi fi des tam te mokkalugu leen yal na yàlla mokkalal leen te barkeel leen ci barkeb Serigne Touba mu mel ni kàddu yi bi Serigne seexu naa noppee ci ay kaddoom doyoon na daanaka ndax ku xam diggante yaari kër yi loo ci xam lu mu néew néew xam ne ku jóge ci barab bii mën naa taxawe mbirum ku nekk ca barab bee muy kër sëñ Amidun ak kër sëriñ Amdi ñor goo xam ne nag sëñ Cheikh Abdou loolu ñor na ko ngir xam ne ñor na sëñ Sidi ak njabootu sëñ am gépp moo tax mu yëkkatikul boppam ndax bu nu boole woon ak sëriñ Abdou Samad ak sëñ Amidun mii nga xam ne mooy cërub sëñ Amidun bu boobaa dana loon dana leen doy sëkk tam nuy danoonu doy sëkk waaye xam diggante sëñ Amidun ak sëñ Amdi moo tax bi mu jógee mu ànd ak njaboot gi yëpp mu ànd ak sëñ Amidun mii ak sëñ Abdou Samad ànd ak leer yi sëñ Amdi itam muy njabootam gu jigéen gii di soxna Maymuna ak soxna Moomina ak soxna Xadi ak taalibeb soxna moom yi bu ñuy wax soxna ndey ñaan moom itam ñu ànd niw ci ci ci ci bis bii mu ko yëgee itam yëgal nu ko nun dong yi nu jàpp ne itam num neexe sëriñ bi rek neexee nanu nun raw nun dong yi ba tax na daayira bii nga xam ne mooy daayira Cheikh Amdi Moustapha bi nekk Touba dañ caa tànn jëwriñ ya sëñ Njaga Sekk ak sëñ Maam Góor Dem ak sëñ Modou Ndiaye ñu ñëw teewal fi mbooleem daayira bi nekk Touba yëpp daayira bii ci Daaru Salaam itam ñu tànn sëñ Gumba Amar mii ak sëñ Moustapha Dieng ak maam Mor Ñang mii nga xam ne ku xam sëñ bi miin kook moom ak euh, sëñ Malay ñoom itam ñu teewal fi daayira Daaru Salaam bépp kon mel ni ne sëñ bi ñim am ñëpp ànd na ñoom teew fi ndax ay rakkam la am ak i taalibeem ñëpp it nag ñëw teew nag ci ci teewal njabootu Cheikh Amdi di ak yëpp nee na mi ngi ñaanal sëñ Maamoun mi nga xam ne moom la sëñ sii di andi fii mu taxawe liggéey bii yàlla na yàlla barkeel ko te yeggale yéeneem mi ngi koy santit nag bu baax cant koo xam ne mbooleem njabootug Seex di Moustapha gépp ñoo koy sant njabootug sëñ Amidun gépp ndax sëñ Maamoun bu dee ndaw baayam di ko liggéeyloo ci tool boo xam ne war na caa liggéey muy loo xam ne bu fekkoon ne jii daara dong moo am ci Daaru Salaam gépp doyoon na ñi ci des nekk ci leneen waaye bu fekkoon ne jenn daara amu fi day war ñëpp dem taxawali daara kon bu dee biir kër sëñ Amidun am na jenn daara joo xam ne moo mel nii taxawe taxawaay bu mel nii ba bis ñëw ñu am ca teraanga juñ cee sedd sedd ko njabootug Cheikh Abdou Moustapha te jaar ko ci sëñ Cheikh Abdou mi nee na cant gi ak ngërëm li moom xam na ne démb la du tey kon mu ngi ñaanal sëñ Maamun ci taxawaay bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo bokk liggéey bi teñ di ko yaatale feneen di ko xamal ne itam lii mooy seen wàll ab sëriñ daara rek ñëpp mënuñoo maase di ko def waaye kër gu ne bu fa amee ñett ña ca des ñëpp jàpp ca mel na ne ñëpp ngi koy def ndegam yàlla dogal na sëriñ Sidi mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi moo moom daara ji foog doomam andi fi ñëpp maase ànd njabootu sëñ Amidun gépp ànd jàpp ci kon mel ni ne njabootug sëñ amidun gépp ñu ngi toog di jàngale alxuraan kon mel ni ne njabootug sëñ amidun gépp ñoo fépp cër bii tey jox ko sëñ Cheikh Abdou mii kon mi ngi ci sant bu baax di ci gërëm bu baax di ci ñaanal it nag soxna maam Faati mi nga xam ne dañ ko ci fàttaliku muy koo xam ne moom itam lii jomb ko ku ko xam xam ne ñuy def alxur ñuy def lu baax mu bàyyi koo fi ñu di ko ci tudd di ko ci ñaanalaale jomb ko ndax jëf na ci digganteem ak sëriñ bi mbaa digganteem ak bokk gi lu jar loolu kon yàlla na yàlla dolli ci moom ay leer dolli ci moom ay xéewal ca wanale ko nag ak way juróom ya ak maamam yu baax ya suñ Cheikh Abdou nee na bu cant doon weesu cant day wax ne weesu na sant ndax bis bi rëy na ci moom lool ndax def gi ak defin wi diggante sëñ Amidun ak sëñ di nag ku xam Daaru Salaam mbaa nga xam ci ñoom dara xam nga ne diggante bi dafa mel ni rek ni ma koy misaale diggante sëñ Abdul ak sëñ Abdul Ahad bokk giñ bokkoon ab tool di ko liggéey nga xam ne bi liggéey bi noppee daanaka keneen ki mënatu fee toog ndax lañ waroon a liggéey ànd nañ ko diggante sëñ Amidun ak sëñ Amdi diggante boobu noonu rek lañ koy xoolee. lu waay néew néew ab jaxasoo ci seen diggante man mu ñàkk solo mii am mën naa ci wax lu baree baree bari te nootewu woon foofa xay na ndax sama ñàkk solo tey xam naa ci lu bari loo xam ne ñi ma ëpp solo mën na cee xam lu gën a bari loolu ci seeni diggante ci seeni jëflante ci loo xam ne da ngay wax ak kii dem wax ak kee muy loo xam ne lu wér la keroog bi nga xamee yàlla dogal na sëñ Amidou nekk ci waajtaay dama daan def bu ma ñëwee ci sëñ bi yërmande ji ma yërëmoon tax na damay jox wàccuwaay loolu moom yërmande la woon saa su ma ko masaan def rek bu ma ñëwee gis ko keroon nag ma ñëw ci ngoor gi nga xam ne sëñ am daa nekk ci waajtaay yi ma ne salaamaaleykum noonu ma daan def foofu loxo bi teg ci kaw jébi daal jaaxaan ne waaleykum salaam ne bisimilah ma ñëw fekk moom dong mu toog. ma jox ko loxo mu daal di tàllal benn loxo moom suñu am di fi mu tëdd jógu fa te yàlla dogal na waxtu woo ma saan ni salaamaaleykum day jóg toog ne ma bisimilah bu dee ay nit nga fa mu mu jàll ak man ci biir ngir ñewante bu dee ay nit nekkuñu fa mu wax ak man ngir ñewante waaye keroog noonu la ma def ma toog lu mët defe naat fanweeri seconde ëpp ko mu daal ma tàllal ma ñaanal la ma daal tàllal mu ñaanu ma dem ca suba sa sëñ am wàcc ma dikk bi may egg fekk mbooloo mi toog ñuy jàmmante ma fekk ci mbégte moo xam ne dama caa xaw a yéemu ndax démb ak tey dañoo sorewul waaye li ma jàngat rek mooy waajtaay wa ñeewante waajtaay wa rek moo taxoon mu nekk mu nekk ca loola moom itam ba mu wóoree na ko nag yàlla dogal na suñu borom indi na dogal te mu xam kii nga xam ne yàlla dogal na mu bàyyi koo fii liñ yaakaar ci moom te dëgg yaakaar ji dëgg lool muy ak texe keroog ca la am mbégte mu mel noonu ci loolu rek laa ko attee man seen diggante nag di loo xam ne nii kenn mënta euh, wax lépp waaye sëñ Cheikh Abdou moom dafa wax ne mi ngi sant cant goo xam ne njabootu sëñ am gépp la koy sant waaye nag di ci beral sëñ Sidi nag loxo ndax fu sëñ am tegoon sëñ am di Moustapha sëñ Sidi teg na fa sëñ Cheikh Abdou ni ko Moustapha sëñ Moustapha Dieng mi waxee ku xam sëñ Sidi xam sëñ Amidun seen doxin wa ñoom ñaar fu sëñ Amidun tegoon sëñ am di ci ak bëgg aku aku aku wóolu sëñ Sidi itam teg na fa sëñ am Cheikh Abdou mii ci bëgg aku wóolu jox na ko ba jox ko cër boo xam ne wóor na ko ne moom mii sëñ siidi daa baax rek waaye cër boobu bu fa àggutoon nag moom itam dana xam ne jàpp gi am na waaye nag loolu tam dafa àgg ci njabootug sëñ du gépp kon bu ñu amee bis bu mel nii tuddee ko sëñ am du bég na njabootug di Amdi Moustapha bëgg nañ nun taalibe yi tam bég nañ nee na mi ngi ñaan yal na yàlla dolli fi barke képp koo xam ne ñëw nga fi itam sa yitte yaa ko xam yàlla na ko yàlla faje na nga ko bëggee te dëppale ko ak na gën te gënal nu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu du ak ñaan suñuy tàmbalee nag ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala jullit yonente bi alayhi salaatu wassalaam sant sëñ borom gaawaan ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala sëñ Amidun Mbakke radiyallahu anhu sama borom jéggal ko téeram ko ak kilifaam yu tedd yam bokkal ak barsax yépp ñuy jaare sëñ Sidi ak njaboot ak sëñ amidun gépp di sant bu baax a baax a baax ci taxawaay yi nga xam ne njabootu suñu amidun ñu ngi koy taxaw ci daaru salaam dëgg la sëñ maamun daara ji nga xam ne moom la ko sëñ sii di jox mu taxawee ko taxawaay bu rafet dafa ànd ak i kilifaam ay magam taxawee nag taxawaay bu rafet ci mbooleem daara yi nga xam ne woo nekk biir Daaru Salaam ak li ko wër ci ay jëf yoo xam ne di jëmale kanam daara ji di ñoŋal donga yi nga xam ne ñooy jàng ci daara yi jëf yooyu yu bare bari bari du ko fësal waaye seen daara bari na ci daara yoo xam ne tàmbale ko sama jos ak suñu balla ak jeneen jeneen yoo xam ne dem fa fekk fa ay dong mu saytu seen wér-gu-yaram jàppale leen ci fan yu baree bari kon ñu ko ñaan yàlla moom suñu maamun sama borom def ko magam islaam te musul ko te aar ko te tawfeexale ko mu am ngërëmal ay way juróom suñu daayee suñu kàddu mooy bis bi nga xam ne yàlla dafa dogal sëriñ bi amal ko fii ci weeru safar wii nga xam ne dañ ci santle sëriñ Tuubaa mboolem li fi sëñ Maamun taxaw taxawee ci ndigal sëñ Siidi ak i kilifaam yàlla ko yàlla dugal ci cant gi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa di la andu di sàkk ci taalibe ak julli yi ñu sant leen ko ci weeru safar yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi waaw kenn ku ne ñu lay nuru ci sa tur ak sa sant di nuyu bu baax sëriñ Siidi Mbàkke ibnu sëriñ Ahmadu Mbàkke ak njabootam yépp ñoo ngi nuyu soxna Anta Diop ak mbooleem ñi mu àndal ñëpp ñoo ngi nuyu mbooleem ndey daara yëpp ak képp koo xam ne mi ngi teew ci bis bi ñu nag dañoo am contentement lool ak xol bu sedd kàddu yi may wax nag maa ngi koy waxal ndey daara yëpp ñi ngi sant bu baax sëriñ Mamoun Mbacke ak ñi mu àndal daara ji fii ku fi teew tey sa xol dafa sedd tooy ba mënatoo wax loolu sa xam naa moom a jàpp ba kàddu yu du mën a demee noonu sëñ bi ñoo ngi lay ñaanal bu baax di ñaanal xale yi fiy jànge ñoom ñépp yàlla nañ mokkal kom ni ko xale yi defee tey ñoo ngi ñaanal bu baax waajuru dong yi di leen soññ di leen xamal ne fii tey ku fi teew ba gis li fi xale yi def war ngaa gën a mën a soññ sa doom même boo fi amul doom ak ku ko amagul yépp yal na la yàlla may am njaboot ba nga mën koo indi fii ci daara ji wala ci yeneen daara ba ñu def nii xale yi def tey soxna Rama Cissé tamit mi ngi lay yóbbante ay kàdduy cant ndax moom maa ngi koy jàllewaaleel cantam gis nañ bu baax koñ bi nit ñépp taxawoo bis bi def ko ni seen bis yéen ñépp ñoo ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal xam naa lu matut ci kàddu yi rek xol bu tooy moom moo ko waral sëñ bi jërëjëf maa ngi sant di la gërëm di la ñaanal macha allah. téeméer li fa dox bari na lool naar bi xaalis bi ko sëñ Masamba Diop Sam jox bari ci moom lool mu wëlbati ko waat delluwaat ci sëriñ bi ndax dafa yaakaar ne daf koo jox ngir mu andil ko sëriñ bi bi mu ñëwaatee bi sëriñ bi sëriñ bi ne ko yow yaa ko moom dañ la koo terale ngir alxuraan ji naar bi yéemu lool yu fi rëy ci moom lool sëriñ bi ne ko. alqur'aani alqur'aanu wal axaadiisu wa manaafiu dunya kulluha lii sëriñ bi ne ko alqur'aanul karim ak xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak njariñil àdduna ak alaaxira suñu boroom mën mii la ko jox kon kooku képp kuy yëngu ci alqur'aan ne la ne moom ngay liggéeyal daraan yëkkati ay bayit sax di ko jëmale ci alxuraan mel na koy wax ak jëmmi doomu aadama gi taxaw ci kanamu naan ko yaa kitaabal karimi anta xabibi wa xalili wa kunta xablu tabibi nga xam ne moom la defoon muy xarital moom la defoon muy soppeem alxuraanu karim sax moo doon moo taxawoon ci moom taxawaay ab docteur boo xam ne daf koy fekk kon kooku dégg nañ nit ñu baax ñi ni ñu jàppe woon alxuraan karim waaye fi mu ci àgg mosuñu koo dégg ci histoire bëtit mosu koo gis kon kooku moo tax it suñu borom defal na ko ci tawfeex joo xam ne eh, bëriwut ñu mu ko defal ndax man jot na maa génn tuuti waaye njabootu njaboot gi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci moom ni suñu borom dogalee ñuy mokkalee noonu alxuraan eh, wax dëgg yàlla gisuma ko fenn jamono bi ñu nekkee euh, euh, Égypte muy jumhuriyatu masal arab yi am na benn concours alxuraan boo xam ne concours dawli la maanaam mbooleem euh, Égypte gépp la te ay nationalité yu bëree bëree bëree bëri ñoo ki doon participer waaye ñun njabootu Sëriñ Tuubaa dafa nekkoon biñ ci bokkee ñun ci ñu jiitu lañ bokkoon man yaakaar naa bu ma juumut euh, quatrième place laa jëloon waaw loolu lépp nag di liggéeyu Serigne Touba ndax fonk bu mu fonk alxuraanul moo tax suñu borom fayee ko dëkk bi di Touba ak Daaru Salaam ak li ko wër boo fi ñëwee li ñu fi fekk ci mbooloo mu alxuraan mbooloo mu bokkoo alxuraan amul fenn fooy dem ci àdduna bi ba gis ko fa ndax man Égypte gi ma nekkoon naar yi boo leen mosaan wax ne mokkal alxuraan duñ ko gëm dañ naan loolu mënta nekk. dañ naan la xafis alxuraan nga ne waaw ñu ne kullu nga ne waaw ñu ne laa laa laa mustahil mënuñoo gëm ne nit man euh, nit ku ñuul mën naa jàng alxuraan mokkal ko mokkal kaamil bi lépp waaye Serigne Touba suñu borom defal na ko ci tawfeex yoo xam ne képp ku bokk ci moom euh, day mel ne waajib la ci yow nga mokkal alxuraan waajib nga koy def ba yaakaar naa buñ taxawaloon ñu sëtoo ci moom buñ dee téeméer li wér mooy juróom-ñett fukk yëpp wala juróom-ñeent fukk yëpp danañ mokkal alxuraan ñu ko mokkalut it lañ ca lañ lañ suñ borom dogal ñu mën ko caa sonn lépp danañ ko ci def kon nag kooku képp ku bokk ci moom alxuraan sab tool la sab liggéey la kon Serigne Sidi ñu ngi nuyu Serigne Cheikh Abdou Khadir mi di seereel mbooloo mi fi teewit ak cant goo xam ne am na ko ci moom ndax digg seen diggante day loo xam ne fu sori la tàmbalee. ndax ku ne xam na leen dégg na diggante soxna Maymunatul Kubra ak soxna Aïchatu Mbàkke seen diggante benn la defoon seen bopp fonkante bëggante ngir jëmmi Sëriñ tuubaa ak Sëriñ Mor Jaara mi bokk loola moo wàcc ba ci seeni njaboot ba diggante seen xaamidun ak seen am ñun fekk nañ ci lu baree bari mboolem li ko tàmbalee ci sëriñ Sidi ba ci ñun ñi gën a ndawe képp ku ci masaana am tudd ñi fi jot a fekk sëñ am di nekk fi boo ko yëgalee sëñ am du ca moom la lay yebal nga yëgal ko lu ca mooy ñëw def ko wala mu yebal sëñ wala ku mën a yebal waaw am da ko doyloo woon lool lool ci lépp ñun ñi sax bu woote addi masaana ñëw ñun njabootu boppam ci moom la yebal suñu am di moo ñuy sas sas nag daan na xaw a diis lool daana metti waaye sëñ bi da ko daan jaral lu ne da àgg ci ne sax bëgg naa sax mbubb ku amut ku saw sas matut nga jël mbubb jox moom mottale ko loolu daanañu ko faral di wax ngir bëgg rek ñu góorgóorlu ci ni ki noonu tam maa ngi fàttaliku bi may bëggee dem Égypte dem jàngi bu ñëwee waxtaan ceeg sëñ bi da dama demal bi waxtaan ceeg moom tàggu ko waaye boobu foog naa ba noppi bu mënatuma wàññeeku moo ko waxee mu ne ma ah loolu de lu baax la moom waaye seen waajur wi de moom xam naa ci moom loo xam ne liggéeyam ko yemut ak dara waaye xam nga booba yi fi ndaw ak ku bëgg a jàngi rek man booba waaj naa ba mënatumaa dëpp ma dem waaye yàlla dogal na ba ma demee ba ca déwén sa ba ma ñëwee sama xel mi daal ni ma daal dem ci sama xel mi dem ci lam ma waxoon ma ne daal damay toog bàyyi lépp te liggéeyal sëñ bi nag xam naa loolu moo ëpp loolu xam-xam bi am na solo waaye comme li ci mën ñàkk xam naa ko li ko des naa toog def li ma sëñ bi wax ca laa toogee delluwaatuma toog ci wetam di def sama kenn kàttan la moom ci liggéeyam kon digganteem ak suñu am diggante la boo xam ne euh, mën nañ cee wax lu bëree bëri suñu am doyloo woon na ko ci ci lépp njabootam gi ñëpp da leen boole woon ak moom li nga def ngi waxtaan ak moom di ko ca laaj ndigal kon nag loolu bu doxee ba lu bokk ci njabootu suñu am di sëñ Mouhamadou Mamoun yor daara ji nga xam ne daara yi suñu Ahmadou la bis bi ñëw mu cërale ko seen Cheikh Abdou loolu mën nañoo euh, fedd li ne neex na sëñ Ahmadou li ko noonu tam njaboot gi fi nekk tàmbalee ko sëriñ Sidi ba ci ñu topp ci ginnaaw ñëpp mbégte lañ ci am ak bàndeex ndax day dundalaat diggante day dëgëral tam diggante bi kon nag loolu tam sëriñ bi nee na am na ci mbégte am na ci kontante lool bu sañ am di jàllet moom mi dafa amaat eh, dox taxawaayu boppam boo xam ne toujours dañuy toog di ko waxtaane ndax nit ñi moom booy def lu baax mën nga koy nëbbu di ko def te yàlla tax waaye nit ñi nag faw ñu koy waxtaane di ko seere waaye nit ñi fi ñu toogee di waxtaan ba tudd ko ñëpp lu baax la ñu wax ci moom ñëpp dañ koo naw ñépp dañ koo fonk ngir yitteem ak euh, mbaaxam ak fonk doom aadama du tan xam lu kenn lépp lu xew ci nit boo ko yëgalee lu mu ko mën a fekk dana ko bàyyi ñëw teew ca ànd ko yow ba mu jeex solo nekk Ndakaaru woote su ñëwee mu ko fekk da koy bàyyi ñëw ànd koog ñun yandu fa ba ngoon te bu yebaloon kenn ki taalibe bi sax mu doy sëkk waaye moom nii am na cër boppam boo xam ne wóor na ma ne suñu am di la mu fi bàyyi woon jëf na ca jëf euh, téye na ko ba pare yokk ca loo xamante ne ni nañ ko ñaanal suñu borom guddal aw fanam ndax xam nañ ne bu bu bu fi yàggee rek lépp lu lu suñu am di yéene woon te àggalew ko dana ko yeggale kon Mbàkke ñu lay sant bu baax di la gërëm. te cant gi damaa yor micro di wax rek waaye mboolem ñu fi nekk ci ay mbokk fu ki nekk boo boo toogoon fi ma toog it lii ma wax mën nga koo wax te sa diggante ak yàlla rek nga koy seeral am nga yëg ki nit am nga yitte fonk nga doomu aadama te ab sëriñ loolu mooy liñ koy nawee kon yàlla suñu borom guddal saw fan te defal la ak wér ba li ngay yéene ci liggéeyal seexul xaddim li nga dee def ci mbokk yi lépp nga àggale ko fa nga ko war a àggale ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm mi ngi yóbbante mi ngi sàkku moom du ko sant da koy ñaanal muy doomam sëriñ Mouhamadou Mamoun ndax dafa seddoo alxuraan te lim seddoo mooy li nga xam ne lépp lu yàlla bind ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alxuraan moo ci gën a tedd lépp lu suñu borom bind ginnaaw yonente bi salaam alxuraan moo ci gën a tedd loolu nag ku ko féetewoo def ko muy sëb cër na nga xam ne am nga kenn ëppalewuloo cër te moom bi mu jàngee alxuraan ba noppi ba jàng xam-xam dafa jël alxuraan def ko muy ab cëram di ki liggéeyal waajuram di ki liggéeyal maamam sëriñ Hamidou di ki liggéeyal sëriñ Touba nag ndaw la waaye ndaw lu bëgg lu baax la lu tegu ci yoonu njub la kon nag sëriñ bi naa ne mi ngi sàkku ci sëriñ Cheikh Abdou mu ñaanal ko ko bu baax a baax di ko sàkku tam ci mbokk yi fi teew ak ci mbokki taalibe yi ñëpp ñu ñaanal ko suñu boroom sàmm ko te aar ko ba liggéey bi lépp lu mu ci yéene def ko te defe ko sagoo ñu koy ñaanal bu baax a baax it suñu sàmm ko aar ko ba mu àggale ko fu mu ko bëgg àggale ci barkeb Cheikhul Khadim mi ngi sant tam mbooloo mu fi teew yëpp bàyyiwut kenn mboolem mbokk yi fi ay mbokk rek a fi nekk ndax Daaru Salaam yàlla dafa dogal ñi fi nekk muy sëriñ seeg taalibe yi ñëpp ay bokk lañ ñëpp ay bokk lañ ndax euh, suñ maam yi fi nekkoon mu Cheikh Seydil Muxtaar ba ci Cheikh Mouhamadou Mamoun xàmmewutoon ay doomam ak ay taalibeem ñëpp la defoon ak njabootam moo tax Daaru Salaam boo fi ñëwee am na jotaay yoo xam ne boo fa demee doo xàmmee sëriñ si ak taalibe yi ndax ñëpp ay mbokk lañ kon nag sëriñ bi mi ngi sant ñi fi teew ñëpp di ay bokk ak foo mën a jógee mi lay sant di la gërëm di xam la ne amut benn jotaay bu gën jotaay bii salaamaaleykum jërëjëf sëriñ Mame la di jànkatu alxuraan bu mag nekk Daaru Salaam ñu xam ko bu baax ñoo ngi rafetlu say kàddu di nuyu mbooloo mi nga xam ñoo fi teew di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu di siyaar sunu waajur yi nga xamante ni ñoo fi teew sangu yu tedd yi ñoo ngi ziar ñëpp di yël bi yëpp jox ko sunu sëriñ sunu xarit sunu lépp sëriñ Mamoune Mbacke di ñaan yàlla sëriñ Tuubaa yàggal la fi sab taxawaay rafet na ci koñ bi wax dëgg yàlla noonu rek ngay mën a mel bu ne kuy sa maam ñu ni sëriñ Amidoune wax dëgg yàlla doy na sëkk ab aw yoon kon ni ko Mame Balla waxee rek kàddu yi du gudd li nga xamante ni moom la ñuy yëkkati ay kàddu la yoo xamante nii ci suñuy kilifa la jógee ñu nekk ci koñ bi rawatine jigéen ñi suñu bàyyi Abdou Diouf buñ ko tuddee day daal di maasale mboolem loo xam mi ngi ci koñ bi di sant rek suñ sëriñ bi ni nga xam moom la nekk ci daara ji mbooleem koo xamante nii tout tànk nga sa nekk ci koñ bi rek am na yéene nga jàng ci daara ji ca laajul dërëm kon loolu nekk na loo xamante ni bu defee lu mel ni tey jii suñu yaay yi ñu ko àndal ñoom ñu nekk ñu am jom ndax euh, ku xool picc mbay mi jóge fii léegi li nga xamante ni moom la yor du lu nuy leeral fii waaye loo xamante ni ñoo ngi koy jëf si daara ji rek jigéen ñi ñoo si man góor ñi te loolu dañ koy leeral bu baax a baax a baax loo xamante ni ñoo ngi koy jëf ci ja daara ji jigéen ñi nga xam ñoo jur xale yi ne si daara ji ñoo man góor ñi nga xam ñooy bàyyi xale yi kon góor ñi war na noo gën a góorgóorluwaat xam ni mboolem li ñuy def si daara ji ñun la war tabax daara ji ñun la war mbaar daara ji ñun la war basa ngi si daara ji ñun ñun la war kon ñoon ñoo ngi wékk suñu bopp di sant sëñ bi nag bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di ñaan ci barke Ahmadul Xadim yal na la yàlla yokk barke Serigne Touba kàddu yi munta gudd lu ci dëng lu ne ci man la lu ci jubit ci sunu borom la waaye ñi nga xamante ni ñooy parents yi ci koñ bi am na nañu cant goo xamante ni wax dëgg yàlla am na tàmbali waaye amatu yemukaay rawatina docteur Diagne mi nga xamante ni moom it lépp la docteur Diagne day def lu bëree bari si daara ji te sëñ Maamun du ko wax du def lenn wallaahi lacim kon docteur Diagne moom mi ngi amuk cant bu baax a baax loolu nga xamante ni moom nga ko nungul mu koy def te yé waxoo ko kenn kon ñoo ngi jégalu di wàcce su suñuy kàddu xam ni ñun daal ñun ñëpp ñoo ngi ànd ñaanal sëñ bi di ñaan si barkeb alxuraanu karim yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla sàmm barkeb Cheikh Amadou Mbacke sa maam je jërëjëf maam Balla yéen mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen sant ci teewaay bi di yëkkati kàddu gi ci turu daayiratu ahbaabil quraan ak ci turu njiital Serigne Mamoun Mbacke di leen yéegal daayira bi moo ngi ubbi ay buntam ci képp ku bëgg a ànd ak ñun liggéey bi aju ci daara bi ku ci bëgg a barkeelu na jokk ak njiital daayira bi Serigne Cheikh ak soxna Mati Diouf di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi nuyoo ak ay ziar ñi teew fii di ñaan bur yàlla taw leen tawum gërëm fasu tàgg lay war teg ci lay taayi jom di wër ci biir daara tànni gaay ci ñoom ràng leen ndam sëriñ daara sëriñ daara say dongaa xëy yónni tey ci yow ni naa leen woyal ngir sant moo tax ma jël xalim sëriñ daara say dongaa ma xëy yónni tey ci yow ni naa leen woyal ngir sant moo tax ma jël xalim sëriñ muudu maamun mbakke jaajëf yeyoo nga ko sa pastéef bi ak sa bëgg daaraanu dolli jom dangaa jiitu jub sellal ba say donga bég ci yow ca téereb borom bii ñor la ngay sonn ngir ñu xam sëriñ Babacar Mbay Njaay dama xam ko xam gu wér ci pasteefu ak nangoog lawet naw ko ci yaram sëriñ Babacar Mbay dama xam ko xam gu wér ci pasteefu ak nangoog lawet naw ko ci yaram ni muy sonne moog siñ muudu tin mii ci daara ji marax njël subaak ngoon lépp ñoom fii njëm kanam sëriñ Fallou Niang sëriñ Fallou Niang ak sëñ Mamoun mi sant Fall sëriñ Fallou Niang ak seyxu Mamoun mi sant Fall sëriñ Hamidou ñoom ñett ñi am li gën ngalam ne téerab borom bii gën lu nit am ci ak dundam la ñoom ñett ñi mokkal ku nekk moom ci ab dënnam sëriñ Fallou Niang ak seyxu Mamoun mi sant Fall sëriñ Hamidou ñoom ñett ñi am li gën ngalam ni téerab borom bii gën lu nit am ci ak dundam la ñoom ñett ñi mokkal ku nekk moom ci ab dëndam xanaa lii ko jar bàkkoo lu dul moom jërul ndamoo bu leen ñeen nit ak lu man di am yéen a dàmme ndam sëriñ bamba alquran la fonkoon ba tax mu raw na leen fonk alquran ndaxam mooy maye ngërëm sëriñ siidi moxtaar ibnu sëñ xaamidun mi def fi jii daara nañ ñaan yàlla buur yeggalay mbiram sëriñ siidi moxtaar ibnu sëñ xaamidun mi def fi jii daara nañ ñaan yàlla buur yeggalay mbiram wér ak mucc ak jàmm ak salaam fan gudd lool ci barkeb sëriñ Touba mi génnee ñu ci ak lëndëm salaatan wa tasliman ala afdalin nabi mahal ali wa ashaabi lii day na naafiyam salaatan wa tasliman ala afdalin nabi mahal ali wal ashaabi lii day na naafiyam chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer